suma ñew ndar indi dafa président de la République euh, son excellence Macky Sall bi mu taxale gouvernement bi dañoo sass lu leer dafa bëgg ay ministre yu été askan di sok ñom di leen déglu di leen fekk seen bëgg-bëgg di lim ci ak ak ci nit bi ngay te mu

ba bala ñuy dem Roos Sénégal bi am dafa am projet bu jëm ci wàllu culture urbaine bu am solo boo xam ne royukaay la waroon aussi tey ndar gii bala ñuy dem dajale ñëpp ñuy kuréelu ñu yëngatu ci wàllu aada ak cosaan muy ñu nekk ci théâtre ci wàllu musique ci wàllu mbind ci wàllu xalaat ci wàllu euh, lépp loo xam simbak lépp leen dajale tey ay waxtu yu bëree bëri bëri ci teewaayu gouverneur préfet suñu directrice centre culturel ak directeur yi ba ànd ak Ndakaaru ñoo ñoom fii nii li ñu fi góobee garee ko fi njëriñ kese la xam-xam bu sell xàmmee ràññee bëgg seen aar bëgg seen réew indiwaale ay saafara bañ def rek ay ay jàmbat loolu laa fi dégg loolu laa fi gis. moo tax nag euh, li ñu président sant ñu jéem a jël ay jur jumtuwaay tàmbali ko ak ñoom bu njëkk ba mooy comme que centre culturel amu fi dañu ab ab local la ñu jox te président ci yéenam ci ndar. ministère de la culture pour jagleel ko cosaan ak aada. fi mu ne am na jotaguñ ko am lu fa nekk mais bu ñu ngi def kéem kattan pour jot ko jagleel ko ñuy yëngatu ci wàllu cosaan ak lu jiitu tamit nee naa ne kuréel yi pour waxtaan gaal yëgoo nañu ànd nekk aw say am benn kuréel bu leen ëmb ñoom ñëpp mu nekk ab fédération nangu nañ ko déggoo nañ ci bu ma demee ñu commencé liggéey bi loolu bu tàmbalee ci fonds président jël jagleel ko ñi nga xam ne nii yëngatu ci wàllu cosaan ak ak seen i dañ ci jël lu mat ñeent fukki millions 40 millions jox leen ko ci turu président la République ñom ñoo xol lu koy défé nak benn bu nekké daluway bi roña tel na paré ñu dem am fas daluway daluwaay copar yoy dimané ko ci walu comme comme naka la ñuy jappalé ci xaalis bo di leblanté di liggéey di ci delloowante di joklanté ci loola jël ci benen patch bo xamné dañ koy jëmal ci wàllu seen mutuelle wérgu yaram di dimbalanté ci ñi nga xamné ne am nañ jafe-jafe seen yaram suutante na ñu dimbalanté ci lolu nga xamné ne ni du yegg sax ndakaaru ci yenn yi benen bi bu nekké ne aussi siège ba yéx na ñu fay utal ab terrain ñoom seen koppar bopp la ñun amuñ droit tabax leen ci loolu mais ñoom am nañ sañ jël ba xaalis tabax ko ab siège ne ni dañ ci luy lu bëree bëree bëri yenn yi aussi am nañ ay jàmbar yu ma fi dégg yoo xam ne jàmbar yu ndaw la ay artistes yoo xam ne pour seen bi ñu ko waxee aussi li ciy saafara incha allah ko bu ñu yegg Ndakaar duñ ko def wàññiwul dara festival yi am ndar te ñu tàmbali di jàppale yi am yi passé yi ñëwagul aussi dañ ko jàppale parce que ndar dafa am beral loxo bu ñu ko a defal suñu premier capital ndar la woon buy cosaan ak aada Moi, métissage nga xamni la ko ci portugais ba anglais ba français ba doomu ndar dolli ndar nek benn say bokk dé bokk bay muy lu melni euh Sénégal dañu dajé ci frontière ndar Carrefour euh, place bo ne bëgg a jàng Sénégal bo, di fekk dafa waruñ ko waruñ ko nag dañ ko bëgg magal té histoire la lonka fii ñu tok dajé fi ñu tey moy daluwaayu conseil départemental bu ñu fàttale conseil des ministres ñëk am Sénégal fi lañ ko défé lool histoire lool taarix la dafa am solo ñu magal ko dafa am solo ñu fësal ko dafa solo ñu woné ko festival yi gëna mag Sénégal gën fay yag gën fay yaatu té mësuñu tarxis presque yalla yalla xeb doli mais ndar lañ ko xamé kon luñu ñuy def ci aada bu fi jiituwul ké warul ko koo lool mo indi indiwoon les présidents woon ndogal yi nga président ci ndar wax ko ak yi aussi ñu a lool ñëw dimanche la indi xalaat bu rafet waaw. président de la république na benn ci bu am solo ci mhm. di complexe régional bo xamé ni dañ koy jox walu adaptation ñoo ko ci 14 milliards mbir mi naka lay non président de la république ak xolam ci réewam moo yaatu loolu moo jur. ay Ila Touba moo jur TER moo jur ay BRT moo jur ay Ngandi aéroport moo jur programme yoo xam ne Sénégal moo jur ay Diamniadio moo jur yoo xam ne ni dañ koy natte ay milliards yu bëree baree baree bëri parce que moom lépp lu jëm ci wàllu euh, trox troxal askan wala luy tuutal bëgg-bëgg wala yéene ak ambition askan da koy woon ginnaaw war woon ginnaaw loolu moo tax mu jàpp ne complexe culturel centre culturel xewoon na mais nag xewi na lay dox mom bëgg-bëggam ci réew mi weesu na centre culturel limu mu bëgg mooy am complexe culturel régional fukk ak ñeenti région yëpp bëgg nañu am ko mais complexe culturel benn ba bu gën a rek pour benn day nekk milliard moy junney million ndar nak comme que amul centre culturel bu ñuy tàmbali fa lay wara tambalé motax moo tax bu ñu jógee fii dinañ bind gouverneur ak maire bi njëkk u d'abord souf ba nga xamné mo wara war complexe bi

financement bi dem ci complexe bi dajé bañ tambalé lolu donc daal li ma bëggoon nit ñi xam ko moy yéene président amul app ci ñoŋal cosaan ak aada yéenam ci ndar amul app woné nako ko nako ci ay jëf nit ñi gis ba aéroport ndar bi mujj fa tollu toll fa yegg lu yegg loolu la ak yeneen yu baree baree bari fu mu ku am gan gu baax indi ndar woné ko fi ko indi fi leneen wala jige fi leen lo xamné ndëriñ ba day da ciy tege donc ma ngi profito invité doomu ndar yépp ñu xamné que amé fonk yow ci lu bari lu lu dara koy fukki Mon ambition dépasse de loin les centres culturels régionaux classiques. Il a défini, élaboré un nouveau concept qu'on appelle les complexes culturels régionaux. Le dossier est étudié, les financements sont en train d'être mobilisés et il nous a instruit de commencer par les régions qui ne disposent pas de santé culturelle. Naturellement, Saint-Louis fait partie des premières priorités, des plus grandes priorités pour être doté d'un complexe culturel régional. C'est tout comme Catherine, Sédou, les nouvelles régions également, bien entendu, et d'autres qui n'en ont pas. Mais ici, c'est une grande priorité, et bien entendu, on va déjà, euh, d'entrée de jeu, chercher un terrain à sécuriser à clôturer à partir des ressources propres internes au niveau du ministère, travailler à construire déjà un premier bâtiment qui pourra abriter une sorte d'extension. D'abord les locaux du centre culturel qui sont quand même logés dans des structures euh, prêtées où ils sont à l'étroit pour déjà commencer et anticiper maintenant sur euh, l'édification de ce grand complexe régional culturel. Donc c'est autant de choses sur lesquelles nous avons échangé. En plus également, je tiens à préciser que j'ai longuement échangé avec le maire de Saint-Louis, le ministre Mansour Faye, sur le développement de, nouvelles, de nouveaux projets euh, de culture urbaine au niveau de Saint-Louis. Et là sera une approche concertée et une alliance de nos forces entre la mairie de, Saint-Louis et le ministère de la Culture. Ça, on, on va se répartir les responsabilités, les charges il investira, le ministère investira et nous allons réussir de grands projets de cultures urbaines dans la commune, comme nous sommes en train de le faire un partout au Sénégal et notamment à Rosso Sénégal.